wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asxaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain mbokki jullit yi nuyoo nuyoo islaam fa sallimu ala anfusikum taxiyatan min indillahi tayibatan mubaraka wa hiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu àndaat ak yéen ci seen émission tartila ci seen chaîne tiv actu macha allah tey ñu bëgg a def nag synthèse ci duruus yi nga xamante ni jot nañ ko jàng muy ñeenti cours yi nga xamante ni jot nañ ko def bi ci jiitu ñu taariful quran définition bu ci langue ak ci istilaax bi maanaa ci connaissance ndax nit ki mënta bëgg dara wala mënta nekk di jàng dara da fekk xamul lu muy wund ba pare jàngoon nañ tamit ci même cours boobu asmaul quran yeneen turu alquran yoo xamante ni am na ko bu uteeg alquran ñaareel bi ñu waxtaan ci diggante ki nga xamante ni day jàng alquran ak ki dul jàng alquran tamit ñu tënkoon ko ci ci ñaari aaya muy aaya bi ci bi jiitu bi ànd ak jàngkat alquran yi muy inna alladina yatluuna kitaaballah wa aqaamu ci topp mooy aaya bi nga xamante ni moo ànd ak ñi nga xamante ni du ñuy jàng alquran mu yoonaka arada an dikri fa inna lahu maa'ishatan danka ñetteel bi indi nañ tamit fadaa'ilu tilaawatil Qur'an maanaam bokkul ak fadlu fadlul Qur'an ak fadaa'ilu tilaawatil Qur'an ba tey bokkul parce que alquran dafa am ngëneel spécial waaye dafa am tamit ngëneelu kii jàng alquran moo nekkoon troisième cours bi quatrième cours bi ñu jàngoon mais bi ñu mujjee bi ñu mujjee def méthode méthode bi nga xamante ni. moom nga war a jàngee alxuraan parce que lépp loo gisee dafa am ay condition boo gisee yooyu yëpp nag ñu boole ko jàngale dafa fekk ni alxuraan moo nekk wax ji nga xamante ni mooy wax ji gën a rëy dañu dañu dañu wax ni ni ni yàlla nekkee buuru jaam yi wala ni yàlla gë gënee ay mbindeefam noonu la alxuraan gënee mbooleem wax wa fadlu kalaamillah على سائر الكلام كفضل الله على سائر ni yàlla gënee lépp lu mu bind noonu la alquran gënee mbooleem wax tax alquran war yi yàlla giñ yàlla giñ na ko gën a gudd waaye giñul lu ko gën a rëy xoolal li yàlla wax falaa uqsimu bi mawaaqi'i an-nujuum maa ngi giñ maa ngi war ci fépp fu biddiw yi di jaar wa innahu la qasamun law taalamuuna azim bu ngeen xamul li muy giñ di ngeen xam ne lu màgg la ñu ne ko yàlla li ñuy giñ lan mu ne innahu la quraanun karim muy lu tedd ba tey waxaat na falaa uqsimu bimaa tubsiruun maa ngi giñ ci lépp loo xamante ni yéen a ngi ciy teg seen bët di ko gis tàmbalee ko ci seen i jëmm wa maa laa tubsiruun ak li ngeen xamante ni gisoo leen ko tàmbalee ko ci sama jëmm man yàlla. bi ne ko yàlla ni ngay gindal ne mu ne innahu la qawlu rasulin karim muy alquran yéen ñu doon laajte ndax ay way la wa ma huwa bi qawli shaair du ay way qalilan ma tuminuun néew na ci yéen ñu koy gëm wala bi qawli kaahin du ay njibar qalilan ma tadakkaruun néew na ci yéen ñu di ko fàttaliku tanzilu min rabbil alamin wax la ju bàyyi ko ci borom asamaan ak suuf wax na ju bàyyi ko ci ci mbindeef yëpp mu teg ko ci loxo sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax waxoon nañ tamit ci wàllu ngëneel ba tey ulama yi indi nañ ci benn benn benn anecdote dañu wax ni ki nga xamante ni dañu wax ni alquran yàlla daf ko teg ci loxo jibril jibril nekk sayyidul malaayika gën ci malaayika yëpp mu wàcce weeru koor weeru koor gën ci weer yëpp mu wàcc guddi laylatul qadri guddi laylatul qadri gën ci guddi yépp mu wàcc ko ci ummatu Seydina Muhammad ummatu Seydina Muhammad gën ci xeet yépp ñu wàcc ko ci Seydina Muhammad Seydina Muhammad gën ci yonent yépp waaye yéen ki nga xamante ni dafa xëy jàng alquran ak ki nga xamante ni dafa xëy jàng alquran ñoom ñaar ko gën kon mi ngoog kon bu ñu bëggee gën fii gën fa ñu jëm bokk ci shurafaay ahlil janna gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ahlul quran shurafaau ahlil janna mu ne jàngkatu alquran yi foo dem dafa am VIP foo def am na noobu mu ne noobu la aljanna yi VIP wu aljanna yi mooy ahlul quran yàlla amul doom waaye am na njaboot njabootu yàlla mooy ñan mooy jàngkatu alquran mooy ahlul quran kon nañ ko bëgg te di ko jàng nañ ko bëgg te di ko teral tey teral tamit jàngkatu alquran yi ndax moom mooy li nga xamante ni message bi ñu yàlla lancé di ci waxtaan ak ñun ñu di ko delloo moom moom la ñu wax ci suñu émission bi ñu mujjee def moom la ñu waxoon ni bi bi anna quran li anna bil quran yutadakkar bil matalibil aaliya ci nga mën a xamee say xemmemteef ak ak ak say bëgg-bëgg macha allah bi moom kon looloo nekkoon synthèse bi macha allah xanaa ñu tëjee ko xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni ba ci kër yi kër yi nga xamante ni dañuy dañoo bëgg waa asamaan di leen seetaan. yonent bi nee na innal bayta la yutla fihi alquran kër yi nga xamante ni dañ fay jàng alquran nee na waa asamaan dañ leen di seetaan comme ni waa suuf di seetaanee biddiw yi ci asamaan kon yàlla nañ ci yàlla boole léegi beneen yoon incha allah ci cours bii di ñëw dinañ jël benn kalima ci alquran ñu jàng ko lu ci mel ni laa ilaha illallah nga xamante ni mënees naa wax ni moo gën li yonent bi wax ne xayru dikri ba'da alquran laa ilaha illallah dikkar bi gën kër gannaaw alquran mooy laa ilaha illallah dinañ ko jël ñu jàngale ko ci prochain cours bi incha allah xam tamit chuntu laa ilaha illallah ñu jàngale ko kon mi ñoom asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu